2 janvier 2024 mbette la encore une fois ñu ñëwaat 12 minutes chrono di ko wéyal comme ni ñu ko doon defee ci at bi ñu génn daal di leen di ñaanal atu jàmm atu 2024 boo xamante ne dafay ànd ak xéwal bu sawan bawaan 12 minutes dañ ciy dellu siwaat ni ki tey jëlee am mbette daal di dalal gan gi nga xamante ne mu ngi wuyu turu Mamadou Guèye nekk responsable bu bureau politique bu RSE RSE boo ko déggee mbokk yi mooy renaissance sociale pour l' émergence la ñu dalal la tey suñu plateau 12 minutes chrono. ah monsieur Senghor ngi lay ñu ngi lay fay. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di jiital tamit suñu nuyoo le président du mouvement Ibrahima Salem Cissé di nuyu euh, waa RSA yëpp. Hmm. Euh, di la remercier encore ci invitation bi waral suñu teewaay fi tey. macha allah Mamadou Gueye moom mooy responsable wala bokk ci responsable bureau politique bu RSE sànq wax naa ko RSE jëm ci wàllum émergence renaissance sociale émergence déggoon nañu fii plan Sénégal émergent encore une fois yoonu yokkute et jusque gisaguñu émergence ci Sénégal. gisagoo émergence ci Sénégal. da nga gis émergence. ah mais euh, boo waxee ni gisagoo émergence ci Sénégal loolu vraiment c'est une affirmation. émergence affirmation boobu boo ko waxee man dama lay wax yow lan mooy émergence. émergence bi fan la nekk ak ci lan. bon parce que euh, dafa am ci lu ñu koy dippee plan Sénégal émergent c'est un plan Macky Sall pense que jot nga déglu discours am 31 décembre. ñu ñëw ci discours mais d'abord ci plan. Ah Sénégal émergent d'abord ci bi ngay wax. ci ban fànn ban point essentiel nga gis émergence bi. c'est l'émergence économique c'est le développement social c'est le développement culturel dafa euh, c'est la stabilité politique bëri na fànn yoo xamante ne nii maanaam loolu damay tënk c'est juste le bilan de Macky Sall de ces douze dernières années c'est toutes les réalisations qu'il y a eu à faire. mooy loolu émergence mënu émergence mënu ko weesu. à vous entendre parler. waaw jamono ji Sénégal am na émergence. mu ngi am émergence parce que c'est un programme c'est un plan boo xamante ne nii day di day di évoluer en oui. fonction de fi ñu fekk dëkk bi ak fañ ko bëgg a jëmee parce que c'est un plan qui se bu buy daw ba deux def nañ bilan am bu defee bu près bilan baa ngi waaj a génn suupa jot na am lu mu ci wax ci discours bi ci laa bëggoon euh, ñëwaat. Hmm. donc euh, loolu ku ko gis vraiment soo bëggee boo boo nangoo dëgg dinga xam ni kooku émergence mënu koo weesu. d' mais par rapport ak émergence bi ngay wax xam nga sànq da nga wax émergence économique mais est ce que le Sénégalais en tant que tel mu ngi sentir émergence bi ngay wax maanaam. ay chiffres la ñu koy annoncé mais est-ce que chiffres yooyu askanu Sénégal maanaam bu ñu xoolee diggante 2012 ak léegi askanu Sénégal ki nga xamante ne téeméer la yoroon 2012 dundee ko est-ce que léegi bu yoree téeméer mën na ko dundee est-ce loolu tamit euh, signe de signe d'émergence la. bon xam nga bu fekkee da wax ci chiffres yaa ngi wax ci wàllu croissance économique croissance économique on parti on, on est parti d'un d'un d'un budget de 2344 milliards. bien sûr à un budget de maanaam diggante 1960 ba 2012 budget bi mu ngi toll ci 2000 milliards. Macky Sall ci 12 ans yi nga xam ne mu ngi nekk suñu président. Hmm. yóbbu ko ba 7000 milliards maanaam fois 3 kooku émergence ak croissance mënu koo weesu. donc tey jii nii su fekkee da nga bëgg ñëw nag ci ressenti wu Sénégalais yi. Hmm. kooku c'est c'est qui qui est différent peut être différent de la croissance économique. loolu ça va plus si dans l'ordre des mentalités. oui mais croissance économique bi citoyen bi ñoo koy sentir. ah mais mais naturellement tey jii hmm. nii soo doon croissance économique mu ngi nekk dëpp ci ay infrastructure mu ngi dëpp ci bëgg a faj faju dem hôpital euh, ñu faj la mu ngi euh, dëpp si nga nekk entrepreneur bëgg am ay accès ci ay fonds FONGIP nekk fi DER nekk fi. FONGIP mais malheureusement mu ngi fi DER mu ngi fi ak yeneen i mbir comme yi nga koy waxee ay 3 3 FPT mais encore une fois est-ce que. askanu Sénégal ñu ngi ciy sentir seen bopp dëggantaan. mais la ah, loolu c'est je pense que su fekkee da nga. on parle de de de de quelque quarante cinq quatre cent cinquante milliards. su fekkee ci li nga xam moom mooy maanaam. programme xëyu ndaw réellement la jeunesse sent ces programmes ci nga xam moom mooy. épanouissement ndaw yi faut ma faut ma laisser développer ci loolu c'est-à-dire tey jii nii su fekkee yow tu la jeunesse ne sent pas c'est ton avis mais tey jii nii. DER ak deux cent ak mille bénéficiaires si si quatre cent mille yoo xamante ni nii tey jii nii euh, formation yu ñu yu ñu joxee ci 3FPT kooku c' est des chiffres non négligeables loolu c' ce sont des faits. Hmm. c' maanaam loolu lu lu leer la maanaam nekkul ci ay euh, on n' est pas dans l' de de l' c' est des faits réels des chiffres yoo xamante ni nii euh, réalisation wu Macky Sall la donc maintenant après maintenant mënuñu am nga Sénégal dafa nekk dëkk bu nga xamante ni quand même on reporte tout sur le président tey jii nii c' est c' est au niveau mondial. dafa am ci yuñ jot a jaar dañoo jaar ci mbasu euh, Covid 19 mu nekk loo xamante ni dafa attaqué économie wu dëkk yépp sur le plan international y a pas Sénégal la ñu jógee ci loolu am ay guerre yu bëri yu xew au Moyen-Orient ay problèmes yu bëri am fa ñu jógee ci loolu dem euh, Russie Ukraine mu ay sanctions dal ci kaw Russie ak yeneen bloc yoo xamante ne nii tey jii nii ay engrais lu bëri fa la doon jógee blé loolu yëpp saa ça se répercute sur le coût de la kooku ça n'a rien à voir ak Macky Sall c'est pas le c'est, c'est pas lui moom moo créé loolu maintenant il l'a bien géré je pense que on doit juste être reconnaissant dans ce sens mais di ko di di sànni euh, di di ko critiquer si loolu c'est pas c'est c'est c'est, c'est être, ne pas être reconnaissant. d'accord ne pas être reconnaissant le président Macky Sall def na discours. Mm-hmm. comme ni mu ko faral di defee à chaque fin d'année. Ouais. d'ailleurs ça a été un discours historique puisque c'est la dernière fois qu'il s'adresse normalement. en tout cas la population sénégalaise qu'il a élue en 2012, qui en a eu confiance en lui, renouvelée en 2019. Ouais. Alors, est-ce que réellement Macky li nga doon xaar yow moom nga indi ci kàddu. C'est un bilan exceptionnel. Nul n'a fait mieux. Il n'y a aucun président de, de, de l'histoire de 1960 au 2 janvier 2023 qui a fait mieux. dañ ko wax te gis nga tey jii nii xam nga il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. nit suñ la tegalee dëgg jox la ay fait ne lii la nga xool waxal yàlla boo gisee dëgg da koy wax hmm. y a pas un meilleur président que Macky Sall maintenant on peut parler de la communication peut-être que il a pas su peut-être wala boog son entourage n'a pas su bien communiquer sur ses réalisations loolu mun nañ si débat hmm. c'est libre à, à l'appréciation mais dans les réalisations et les faits les chiffres sont réels te ñu ngi fi hmm. c'est le meilleur président de l'histoire jamono jooju Karim Meïssa moom il a peint de en noir moom mooy a peint en noir les réalisations de Macky euh, est-ce que justement vous pensez que Karim Wade a bien fait est-ce que justement c'est d'ailleurs même la position que vous attendez de Karim Meïssa Wade opposant farouche d'ailleurs du président Macky non je le considère déjà pas comme un opposant c'est-à-dire au départ je pensais que c'était plus une comédie parce que dama foogoon ni euh, AI moo ko intelligence artificielle moo defar vidéo bi parce que euh, quand même kooku c'est quelqu'un boo xamante ni su teg su tegee tàngam Sénégal on devait lui faire payer tout l'argent qu'il nous doit yóbbu ko kaso. 138 milliards exactement c'est ce qu'il nous doit. donc vous réclamez à ce que Karim Wade rend l'argent maanaam mu fay xaalis bi nga xam la ñuy wax. Mm-hmm. c'est ça donc c'est pas un opposant c'est pas quelqu'un qu'on doit même mettre à la télé waruñu sax toog ci fi Sénégal toll. ci mm. 2024. Mm. ñuy pétrole di am. ay perspectives économiques yu dëgër. am candidat bu mel ni Amadou Ba di tudd turu Karim Ba c'est votre candidat. waaw c'est le choix cohérent je vais euh, commencer par benn aphorisme euh, Frantz Fanon qui dit que chaque génération doit dans une relative opacité affronter sa mission la remplir ou la trahir. Mm. la mission de cette génération-ci c'est le choix cohérent du février de, de, mooy Amadou Ba parce que c'est le c'est l'architecte du plan Sénégal émergent et on ne peut pas trouver plus compétent plus juste plus droit que Amadou Ba mais pourtant du ñi nga xamante ne ñoom la ñu ànd ak ñoom ñu bëri gisuñu loolu ku ci mel ni Aly Ngouille jaay ku ci mel ni Boun Abdallah Dionne ku ci mel ni Mame Boye Diao jàpp nañu ne Amadou Ba ne peut pas être l'homme idéal pour le Sénégal moo tax ñu génn coalition Benno Bokk Yaakaar dama ne dafa am benn kàddu ci anglais bu naan birds of a, birds of a feather flock together maanaam ce qui se ressemble s'assemble mm. loolu ça sous-entend que ce qui ne se ressemble pas ne s'assemble pas. c'est-à-dire. maanaam caaxaankat yi. Hmm. mënuñu ànd ak moom. caaxaankat yi Amadou Ba ou bien Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye. caaxaankat la wax lu wax day mais pourtant depuis 2012 gis nañu compa compagnonnage bi nga xamante ne ànd nañ ko. waaw non non non non non attention attention lui c'est un homme d'État c'est quelqu'un boo xamante ni Amadou Ba on parle d'homme Aliou Ngouille Ndiaye on va on trop perdre de temps dessus hmm. Amadou Ba c'est un homme d'État c'est quelqu'un bu nga xamante ni nit dañ koy jox ay tâches c'est un fonctionnaire de l'État ba mu koy ba mu koy nekk mu liggéey ko en tant que ministre mu liggéey ko fépp fu mu jot a jaar def na fa ay jéego yoo xamante ni il a il a laissé il a gravé son nom ci ci service boobu noonu hmm. donc euh, suñ ko mënul mënul mënul nekk en tant que ministre de de des finances ou le premier ministre di dem en confrontation directe avec euh, peut-être les, les les idées du président Macky Sall mais en soi c'est pas quelqu'un qui se qui s'accompagne de donc jàpp nga ne Amadou Ba. maanaam euh, récréation moo leen boole bokkuñu classe. d'accord alors ñi nga xamante ne amuñu yaakaar ci Amadou Ba déjà par certaines personnes te disent que mosul gagné parcelle entre autres politiquement est-ce que vous pensez que Amadou Ba pour porter le plan Sénégal émergent est-ce que vous pensez que Ba peut faire le poids. face à ses adversaires politiques. Bon, Ousmane Sonko, déjà, Sonko, je pense pas qu'il qu déjà aux élections, mais déjà, si fait on parle du plan Sénégal émergent, Amadouba, c'est l'architecte du plan Sénégal émergent. Mais qu'est-ce e, le choix, cohérent. C'est ça la réalité. Donc euh, maintenant, si on parle de, la politique, déjà il y a l'appareil politique du Benno Bokayaka, qui est la mouvance présidentielle. te ñoom ils ont les, les capacités d'élire un peu qui ils veulent maintenant le on doit juste revenir sur le choix du président Macky Sall parce que quand même c'est la personne la plus avisée la mieux informée du Sénégal su jëlee nit tabb ko te du nit bu ko gën a jege parce que am na bu fekkee ne on parle de compagnonnage wala affaire yooyu on aurait eu peut-être un Boun Abdallah mais le fait que mu porté choix wam si Amadou Ba loolu nekk dafa war a tax ñu gën koo bëgg a xam xam ni que kii c'est le choix pour le la continuité moom la Amadou Ba di woote. Mhm. ay ñoñam moom la ñuy woote yow tamit moom ngay woote. Mhm. suis mois le Sénégal on di que fépp ay métti. Mhm. déjà euh, sànq yaa ngi koy wax c'est vrai que am na ay réalisations sur le cadre en tout cas dans le secteur sanitaire. exceptionnel mal d'accord d'accord malheureusement ba léegi au vingt et unième siècle en deux mille vingt trois ñuy gis ay jigéen ñoo xamante ne. pour ñu am maanaam bu ñu nekkee bu ñu waree wasin wasin ba am ngeen baal ma ci kàddu gi dañoo war a génn dëkk nekk ci sa saret dem ci yeneen ay village wala mhm. dem ci ay hôpital loolu mhm. nekk benn gëkk-gëkk mhm. am na ay diwaan yoo xamante amuñu ndox ay diwaan yoo xamante ne l' accès universel à l' électricité comme l'avait dit le président Macky jusque là absolument rien en fait je veux dire nekkul loo xamante ne c'est réalisé ou euh, loo xamante ne gis nañu ko beneen bi mooy on voit la situation actuelle ci lu jëm ci immigration irrégulière des jeunes désespérés est-ce que continuité boobu ngeen c'est-à-dire peu importe ku mën di ñëw su ñëwee day xool li fi Macky Sall def mu continuer ko Amadou Ba la continuité ça veut pas dire que euh, il va il va il faire la même chose que Macky Sall. Hmm. c'est-à-dire il aura sa touche personnelle. ñëw xool li nga xam ni jot nañ koo def ci plan Sénégal émergent et il est le plus avisé. il ne peut pas en tant que premier ministre.

il va venir apporter sa touche personnelle ça c'est un point maintenant su fekkee ni dañu bëgg a wax si peut-être qu'il y ait toujours que immigration bi un point que dans la santé tamit ñu mën ci relever quelques gàq-gàq la réalité c'est que Rome ne s'est pas fait en un jour c'est-à-dire ñun Sénégal ñoo tàmm les machine u domoda xam nga il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans notre manière de la de d'appréhender les sujets d'ordre étatique hmm. et un peu les

du pays. Qu'est-ce qui est pour la stabilité du pays ouais, mais tëj bi ñu tëj université bi. non non pas tëj bi en tant que tel en soi mais euh, c'est plus pour euh, ne pas mettre nous de se mettre dans une situation boo xamante ne nii le hmm. pays parce que la on ne on, on peut pas accuser le président de ça. Hmm. on accuse l'opposition qui mène une campagne de désinformation auprès des jeunes. c'est-à-dire bëgg leen utiliser comme un bouclier. Hmm. pour seen ay agissement bu ñu defee seen yenn euh, affaires yi ba pare euh, des choses qui ne sont pas peut-être pas catholiques utiliser les jeunes. alors vous êtes pour la fermeture de l'université alors. non ah, je ne suis pas je suis pas pour c'est une situation que je déplore il faut se dire la vérité mais c'est-à-dire face à des situations ponctuelles il faut prendre des décisions le le, le président c'est un grand chef d'État mm. c'est un grand homme d'État et il va prendre des décisions boo xamante ni ça assure la stabilité politique du Sénégal c'est tout à fait normal au vu de la situation non en vue de la situation moi je pense que c'est tout à fait légal légitime de de de tëj université yi alors c'est mon, c'est mon demain nee nañu dañoo bëgg a def université en fait fac lettres faculté des lettres et sciences humaines ay cours yoo xamante ne en dehors de l'université est-ce que cela aussi honore exactement l'enseignement supérieur du Sénégal on a, on a est-ce qu'une alternative des des gens des opposants des éléments de l'opposition ont influencé des jeunes ñu dem ba tal faculté quand même à un moment donné on peut pas tout mettre sur le dos de l'État état bi moo dem jox leen ay cocktail molotov pour ñu ci ci faculté yi quand même il faut il faut être sérieux hmm. à un moment donné c'est la situation actuelle du pays c'est là où nous en sommes kooku on peut pas mettre ça sur le dos de l'État on met ça sur le dos de l'opposition parce que ñoom ñoo ko ñoo leen influencé te ñoom ñoo ko def d'accord Amadou Gueye Mamadou Gueye mbette la encore une fois ñu dalal ko plateau responsable bureau politique RSE Renaissance sociale pour l'environnement ou bien je veux dire pour l'émergence Euh, excusez-moi de ce lapsus là émergence ak environnement rek xam nañu seen waaye en émergence mënul am tant qu'on n'a pas un bon environnement quelles qu'en soient les situations, encore une fois, je pense que c'est une très belle initiative, encore une fois, d'être jeune et de porter ces genres d'initiatives, justement, donc ci li nga xam ne moom Sénégal mbokk yi 12 minutes chrono ak jàmm